waaye tey li ko waral mooy dañoo bëgg a ñëw bokk bis bi mu doon bisu fàttaliku waaye bisu mbégte ak ñii nga xam ni yii ñooy euh, jigéen ñi nekk fii ci Thiès te bokk benn kuréel goo xam ne gii kuréelu euh, ñi ñu tuddee handicapé lañ waaye yaakaar naa ni ni gën a jekk mooy personne vivant avec un handicap ndax tey ci ngoon dara wóoru ni man dinaa leen fekk kon yàlla rek a xam. ñoñu dañoo wara bok ak ñom lepp luñu am luñu man ak suñu xalaat ak suñuy pexé kon tay bis bu toll ni nga xamni dañu bëgg xol ñom ku ci nekk sa gi yaram set lu ci ne loo yëgul woon te wul wala sax muy metti nga ñew ñu may la tay ñu sétal la sa yaram suñu ci gisé jangoro ñu xam ban fétu jangoro teel ko gatandu yaakaar naa ni loolu dañ ko war a def bis bu ne waaye suñ ko tàmmee nag bis bii tey dafay yemboog li ñuy wax journée internationale de la personne handicapée nga xam dafa doon bis bo xam adina sepp ñu ngi koy sagar ci bis bobu di ci def tam ay xumbeen waye nak day jëm ci yaram France ñu ko def le 3 novembre Sénégal ñu ko def le 3 décembre yenen réew tam ñu koy def te bu len faté ni octobre bé passé ñu doon def octobre rose octobre rose tam dañ ko jagale won jigen ci mu jëm ci cancer bi jëm ci manam wen ak leneen ak leneen ak leneen maanaam daal jigéen su fekkee ni xam nañu ñun su fekkee ni xam nañ gëddaam bis bu ne dañ ko war a sargal trois cent soixante cinq jours yi nga xam ci at mi yëpp suñ ko mënul ku ci nekk saa boo toogee soo wéetee na sa xel dem ci sa yaay. sama taxawaay mooy ñëw li ma ko waxee woon ak li ñu am ci man leen koo jàppale mu jëm ci ay jumtukaayu faj jumtukaayu faj nag. am na bagage yi nga xam ni moom ngay jàpp ngir faje ko am na tam euh, maanaam garab yi nga xam ni moom ngay naan wala nga koy diwoo wala nga koy takk takk sax amul ndax takk moom ci <laughs> wàllu <laughs> daal moom moo ñëw moo moo ñu moo tax ñëw tey euh, indi ko pour euh, jàppale leen. lu ñu indi mooy yi nga xam ne comme maa ngi doon wax léegi ne waylaago yi dañuy am difficulté dañuy am jafe-jafe pour pour dox. Euh, am na ci ñoo xam ne ñii sax dañuy jëm ci mag wala ñu am feebar boo xam ne bii mënuñoo taxaw ak seeni ñaari tànk dox am na ay jumtukaay yu tubaab yi defar yuñ ko tuddee déambulateur ci la ñuy jàpp di mën a dox soo demee nag ci suñu bàjjen yeeg suñu maam yi comme amuñu ko da ngay gis ñuy wute leen ab siis ñu jàpp ci siis bi jóg taxaw yëkkati siis bi teg ci kanam doxaat tuuti ñëw loolu dafa metti donte sax bariwul waaye nee nañu domp ci sot la bokk loolu tax muy néew a ko bari indi nañ ko indi nañ tam li ñuy tuddee ay béquilles indi nañu ko moom it doon na loo xam ne lii loxo yëpp jotuñu ginaaw kon bis bi suñu profité joxe ko xëy na ñàkkul am na ñoo xam ne soxla woon nañu ko te suñu leen ko joxe dañuy béy ci toolu bi yàlla bi ah yàlla rek am lu doy dañoo indi lii agum suñu amaatee leneen dinañ dolli. waaw loo tax man na ci ñëpp jàpp waaw ci sot la bokk ah loolu day man fi ma ko jàppee nit ki minimiser way laa ko yaakaar naa ni moom dafa xamul boppam ndax su xamoon boppam du ko def moy la ma waxoon sànq ci njàlbeen nga nee naa nit wóoru ko ni dina su toogee suba ba ngoon wóoru ko ndax dina fekki waa lay laa way laago wala déet ñun ñu ngi yor auto wala ñuy dugg auto wala ñuy jéggi tali lago ngi bok bu gaaw bu mëna nyu, ñëw maanaam tey nga xëyee ko ngoon nga fanano lago am dit waaw léegi kan mo mëna wat ni dara dara du la dal ki mu worul ni doo ak tay ci ngoon worul ni do laaji yaakaar so gisee ko xamni yalla def nako non dang ko wara jappalé bu baha baha baha baax mana baax waxuma nag jàppaleem gistal dang koy def te yalla tax loolu mo am solo gënuñu leen ëpp ñu leen gënu leen i kili gënuñu leen i kilifa ëpp ñu leen dara kon waxuñu nag nga yërëm nit ki ba ba gëmloo ko ni day dee mais danga koy gëmloo ni maag yow benn lañu lii la dal nii du dara suñu amee bagage yi koy jàppale maag yow ñoo yem képp su ma waaxoo nga waaxu su ma yéegee nga yéeg yéeg bi nag yaakaar naa ne ñi nga xam ñoo ko kuréel gi foofu ba tey ñu ngi ci jëm ci gouvernement bi di leen naap di wax ak ñoom ndax léeg-léeg da ñëw béréb bëgg a yéeg xam nga léegi réew taax léegi dañuy tegale léegi nga ñëw ba ci suuf yéeg parce que ca tabax ba suurale wuñ ko ci woon loolu it lu am solo la yaakaar naa ne autorités yi xam nañ ko te dinañ ci bàyyi xel mi ngi tàmbali nag li ñu tuddee rampe nga xam ci ngay jaar soo amee pousse pousse ci ngay mën a yéeg su fekkee nag ay escalier la ca kaw foofu la problème ba ne waaw ndax réew mi amuñu bâtiment yoo xam ne ay ascenseurs yi ci nekk su amee sax. coupure courant bi dina tax su courant coupé dootoo yëpp donc gis nga de dara matul yàlla rek a matale waaye nag nañuy def ndànk-ndànk rek yàlla baax na ah yaakaar naa ko de yaakaar naa ni daal lu nu mu demee ak nu mu mën a demee ci kanam tuuti dina ci xam dara ndax comme ñu ngi wax ni am nañu pétrole te pétrole mooy jur courant te courant it mën naa jur leneen maanaam ci xeetu ndimbal yaakaar naa ne suñu continuer nii dina sotti waaye ñi ñuy waxal bu leen fàtte ñun ñee leen fi teg suñuy doomu ndey lañ suñuy doomi baay ñoo xam dañuy nekk ak ñoom ci kër yi ci jàkka yi ci jumaa yi ak ñëpp te ñun lu xew ñoom dañ koy wax ñoom lu ñu xewle dañ ñu koy wax kon problème bii ñuy wax ñii tey ñoom ñun gënuñu leen koo xam xanaa kay dañuy jiital yeneen yaakaar ne yooyu war a jiitu waaye su yaakaar naa ne ku ci toog waxtaan ak sa bopp di nga ne man xaaral ma taxaw dellu ginnaaw sóoraal dugal lool ci oto bi boole ko ci. naa ñun ñëpp ñu àndandoo xam ne euh, ñii ñu tuddee way yi ay nit lañu man d'accord xam nit ku wàññeeku nit ku wàññeeku mooy kañu kañu cornet yóbbu ca armeel ya waaw ah, maa ngi tudd Massamba Seye man maay coordonnateur handicap formé dikk waaw tout d'abord ñoo ngi sant yàlla. waaw di julli ci yonent bi sallallahu alayhi salaam di gërëm suñu nijaay nga xam ne moom parent la waaye partenaire la da wax dëgg yàlla partenariat bi yàgg na kon bu bis bi ñëwee tey mu ñëwaat vraiment ñu ngi ciy kontaan mais nag ni mu ñëwee moom moo ëpp solo tey ndax dafa ñëw indaaleel ñu ay matériel yoo xam ne ñun d'habitude euh, ñu ngi ko tàmm am rek ci euh, euh, waa bitim réew nga xam ne léeg-léeg tubaab yi ñoom ñooy jógee bitim réew ñëw indi seen ay matériel muy beek yi muy chaise roulante muy déambulateur yi ñuy doxee muy matériel orthopédique bu mu mën a doon rek ñu ko indil mais tey bu fekkente ni yàlla dogal na ñu am waajur boo xam ne mu ngi yëngatu ci wér-gu-yaram am ay partenaire loolu di law moom mu ñu ciy sédd vraiment dañuy sant yàlla bu baax te tamit mu wax lu am solo mooy appel bi mu def nga xam ne tey jii ñun ñëpp xam nañ ni réew mi waa réew mi ñoom ñoo koy doxal xo euh, di bàyyi xel way laago yi surtout ñi nga xamante ni ñoom am nañu am nañu kàttan loolu loolu am na solo. yàlla dogal na ñu dund daaw ba ren kon war nañu toog ñu waxtaan ci sunu biir xam lan moo dox ak lan moo doxul li nga xamante ni ci sunu part la ñun ñu jël la responsabilité jëm koo doxal li nga xam ni ci état bi la ñu fàttali ko état bi. waaye li nga xam ne ci ay partenaire wala ay bonne volonté la ñoom it ñu wax leen ni leen mbir mi am nañ ci wàll mais rek du lekk ak naan malgré am na fi nag mais li njëkk a def mooy wàcc kaamil ñaanal réew mi d'abord jàmm sax fi ñaanal kilifa yi waaye ñaanal ñi nga xamante ni ñëpp dañoo dëddu ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu génn adduna waaye ñaanal ñi nga xam ne tamit ci ñun la ñu bokkoon rawatina suñu président Alhaji Omar Diop bi nga xam ne dafa fee jógee mat na ñaari weer boobaak léegi ñu rendre ko hommage. loi boobu état bi mën nañ ni depuis euh, ay at a ngi nii ñaari décret d'application rek la ci président de la république jël yi ci des ñu ngi ko koy fàttali na ko jël na euh, taxaw ci euh, recrutement yi nga xam ne dañ koy def parce que am nañ droit ci pour cent ci recrutement yi ñu war de def ci publique bi loolu ba léegi dafa soxle dafa sooxe bari na xale yi nga xamante ni ay way laago lañ sur le plan accessibilité moo xam ci école yi la moo xam ci euh, bërëb yi ñuy fajoo la moo xam fépp fu waaye euh, fu nit war a dem rek dañ koo war a rendre accessibilité ba nga xam ne personne handicapée bu ñëwee dina fa mën a dem dugg fa faj fa soxlaam te du jar sax ñu di ko ñu di ko dimbali wala ñu di ko jàppale comme ni ko réew yëpp di defee ndax man jàpp naa ne développement mënuñu ko wax fekk nit mu ngi soxla jëfal boppam te mënu ko te loolu nag ñun suñ taxawaay la pour ñuy wax état bi kaay leen ngeen def ko ndax loolu dañ ko war a def ndax ñun ci lañu bokk waaw